jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, campagne bi dëgg la door na depuis dimanche euh, mais ñun ñu ngi woon ci ay réglages mais tey lañu ko door donc euh, dem nañu tey ci suba Kayar jóge fa dem Jandeer def Kër Moussa léegi ñu ngi Pout donc waxtaan ak élus yi mais élus yi ci seen bopp aussi xam nañu ni donc population bi moo leen cëral. ñoom ñu nekk ay élus population bi aussi président defa laaj ndax mën nañu samp au conseil des collectivité territoriales population bi ànd d'accord population bi gannaaw bu ñu àndee d'accord euh, sas nañu leen pour que ñu jëmmal donc au conseil des collectivités territoriales jëmmal fa waa département de Thiès donc liggéey boobu ci lañ nekk te li ñu fi dégg ak li ñu gis ci ñeenti collectivités yi donc dal na xel ñoom xam nañu li ñu leen jox te am naa yaakaar ni candidat yi ñu jël kontaan nañ ci te gëm naa ni bu karoogee euh, am nañu yaakaar bu baax a baax ni dinañu gañee naagu nag amu ci mais am nañu yaakaar ni dinañ gañe. lan mooy euh, euh, nañ gañe rek ba mu des leneen parce que ñun combat bu nekk comme ni ma ko waxee ci nasaraan yaakaar naa bal bi mi ngi ak ñun te ku yore bal moom boo. sàgganee ba ñu këf ko yaakaar naa yay indil sa bopp ay problème te am naa yaakaar ni bit bi moom bu keroogee dinañ ko dugal comme niñ ko daan def depuis 2012. en tout cas fii benn objectif euh, ngeen am boo xam ne ko ni vis-à-vis bu sérieux euh, na teg est loolu ah, ni en tout cas bu doon man bu ma waxee ni du ma participer du ma participer gëm naa ni comme wax na ko man en tout cas sóoraale ma loolu bal bi daal mi ngi ñun li ci war moom dinañ ko def léegi moom bu ñëwee ah bu fekkente ni moom nee na sumbul ci match bu ñëwee moom yaakaar naa am na arbitre te arbitre bi xam na li ñu war a def. loolu dañ ko bàyyil donc responsable bu nekk euh, moo xam maire la moo xam responsable pour ñu seet nan la ñuy waxtaanee ak seen njaboot ba ñoom ñëpp ñu dem voter parce que loolu yaakaar naa mooy intérêt njaboot gi. donc euh, ñetti fan la mooy tey mercredi jeudi ak vendredi mais nag euh, bañ a fàtte ni jour yii depuis dimanche am na ñoo xam ni ñu ngi ñu ngi liggéey ak euh, donc conseillers yi nga xam ni moo xam département la moo xam commune la ñi nga xam ni war nañu dem voter am na ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom mais en tout cas campagne bi nga xam ni coordination bi moo ko def tey tey lañ ko commencé te di ci am yaakaar bu baax a baax jërëjëf